sidi barahama bami bergetam ci Senegal boba bis ñëpp yem nañu ci sidi Barahama xanaa xamune yalla ko tan sidi Barahama def ko muy bay ruuxu yi fi ci adina sidi Barahama sidi barahama ñas sidi Barahama sidi Barahama gëm leen ne kii ay wéram du neen Sidi Baraham Sidi Baraham a ñas Sidi Baraham Sidi Baraham gëm leen ne kii ay wéram sir bai baraha ina woni allah mo ma amalin girma jang damu damu sidi baraha ma boye khon gaji sankunyo sidi baraham sidi baraham anyas sidi baraham sidi baraham gamlen neki ay miram dunen sidi baraham sidi baraham anyas sidi baraham sidi baraham gamlen neki ay miram dufo

dund bu métti courant amutoon fi ndox amutoon fi Cheikh Abdou Barhama ba mu fi ñëwee lañ ne la ne seen fil seen fil euh, seen ndox mi nu mu tuddati bi bii doyut leen ñu jox leen boo xamante ne nii boobu dafa leen a mën a tëbb tey mboolem tund wii forage ba moo leen di tëbb ñu ne deetawaay ñu wax benn politique politique seen ne ko pour courant mu ne courant yéen pour li ngeen am ko du yomb xanaa ñu def ay politiciens yàlla fi mu jaarale courant bi kenn xamul ko keroog bi fi góor gi di ñëw pour war fee fanaan fi mu jaar ingénieur bi bi mu ñëwee foofu la jaar kon Cheikh Abdou Barhama ko xàllal ne ko fii ngay jaar kon kooku mooy Maola foofu mooy liw nag dëkku teraanga dëkk bu bëgg yàlla dëkk bu bëgg ngan boo bëggee gan boo ñëwee fii da nga xam ne yow ganalee ko xoon moo tax ñu ganale Cheikh Abdou Barhama mu fanaan fii nii lu nekk ko fekk waaye tey yaakaar naa lam yooya yooya dàq na leen tàngaay wa dàq na ko ñàkk courant ga dàq na ko ñàkk ndox ma dàq na ko tey nag ñu ànd ak waa kër Baye Wilane ci Cheikh Modou Ndaw Abdoulaye Abdi Barhama ñu ngi ànd ak Cheikh Baye euh, Cheikh Baye Lamine Cissé mu ngi mu ñëw ànd ak Baye Wilane TV Cheikh Abdou Barhama ba muy ñëw booba Baye Wilane TV Baye Wilane TV dikkagut waaye mi ngi koy togg ba mu fii ñëw booba waa kër Baye Wilane ñëw ñëwagut waaye en 2016 2017 mu togg waa kër Baye Wilane Cheikh Modou Ndaw ne ko acca nañ dem lu mu togg rek Cheikh Abdou Barhama ne ko mbaa dugal nga ko mu ne dugal dugal naa ko bàyyi la bàyyi ñëw ne ko nag man damay ñëw di wane image yi di gën a gudd parce que li ngay jël dafa gàtt te affaire bi dafa war a des lii moom moo ñu dajale fii yaa seeni ñoom Baye Amandom ñoom Cheikh Alsane Ndiaye ñoom Abou Bikirin Congaan nag mooy ñëw nag laal ci cin li loo xam ne gars tarbiya àgg ci yàlla yal na delloo ko la mu bëgg mu delloo ko ko ci barki Baye barki ñuy tëjee mooy dëkk bi lan lañ bokk ak maam Ahmadou yaay maam Amadou yaayam fii la jógee ko maam dagg siñaan fii la joge ko dem Caareem yaa ngi déggee moo tax keroog ba Cheikh Abdou Barhama njëkkee ñëw fii mu am nu mu demee mu métti ko lool ma ne ko maam Amadou mu ne ah ma ne ko kuy dóor ak man kuy saaga mu ree ba bët yi tooy xet mu ne ma a ah, wax na dëgg waaye tey yaakaar naa ñaata maam Amadou fi daje ñaata Pape Ndoma fi ñaata ñaata ñaata Cheikh Ibrahima Ndom dem fële ñu ne ah mbir ma jeex na mu ne xaaral man nag yi man maa koy gën yaa ngi dégg kër gii melutoon nii bi fi Cheikh Abdou Barhama di ñëw waaye bi fi góor gi ni cëpp gars yi karole nañ peinture nañ defaraat affaire yi macha allah yal nañu ko yàlla yàggal ci barke Baye kon lam doon wax ne dëkk nga fay dem ba muy naqadi bu neexee nga mën fay dem Cheikh Baye Ewel bu ko neexee daagu ko neex fii ci liiwu macha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah yéen ñuy seetaan Baye Wilane TV kii mooy Cheikh Abdourahmane Wilane hmm. Cheikh Abdou hmm. moo ko tarbiya hmm. moo ko Abdourahmane am na connexion. Ah. connecté wu na. te mu ngi ci ligne bi ma ne ko luy ligne bi mu ne ma mooy yar. dëgg la kon yal na la yàlla baax. amiin amiin amiin yàlla barke bàyyi la amiin amiin yàlla lay kontaanee. Ah, dëgg la gis nañ sa taxawaay. dëgg la dëgg la yaa ngi jaayante. dëgg la dëgg la da nga xam ne Baye Barhama la dàq jaayante. dëgg la dëgg la yàlla la fay. amiin barke bàyyi ak képp ku la topp. amiin barke bàyyi képp ku la yaakaar. amiin barke bàyyi ñu ngi nuyu waa kër Baye Wilane yëpp nag ñu ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi suivre Baye Wilane TV ak waa Ruhul Arab Cheikh Alsane Cheikh Alsane Gueye ngi noonu fii fii nag daayira bi mooy Nuurul Basar foofu la ko Cheikh Abdou Barhama tuddee woon ba mu tuddee ruuhul adab fële nuurul basar démb Cheikh Baye awal ñëw ca kaala goo ñuul ga ak mantu bu ñuul ba ne sama bay fa mu demoon comme ruuhul adab un ci kaala gu ñuul ak mantu bu ñuul ruuhul adab deux ca geng ci kaala gu ñuul geng mantu bu ñuul bi 2012 2013 Cheikh Baye awal ñëw ne 2022 2023 wasalaamaaleykum wa rahmatulah